ñëwaat laalaat dara ci téere bi nga xam ne euh, téere bu bari ay njuumte na téere bu bari ay tooñ la téere bu bari ay sos la téere bu bari ay ay ay lëj-lëj la yoo xam ne boroom def na ko te tuumaal ko euh, mag ñu baax ñi tuumaal ko tasawuf bi nga xam ne moom lañuy dundu euh, ñu ci nekkoon nag saa su nekk di ci génnee lenn ci ay njuumte saa su nekk amoon jamono bu yàgg yàgg nag boo xam ne e, taxawali dañ koon ngir njàng mi ñu nekkoon ak xat-xat yi nga xam ne mënuñu ko woon a boole ak di continuer tontu bi e, yàlla defalaat ñu xéewalum nag ñu ñëwaat amaat occasion pour defaat dara e, ci téere bi ñu koy sante yàlla bu baax a baax a baax a baax di am mbégte ci loolu Euh, téere bi ñu wax nag mooy téere bi ñëpp xam ñu koy wax taqdiisul ashxaas fi lfikri suufi ardun wa tahlil ala daw il kitaab wa sunna ku ñuy wax Muhammad Ahmad loo taalif ko taalif ko euh, te téere bi nag li muy wone mooy dafay wone tasawuf ci kanam gu ñaaw kanam gu bon kanam goo xam ne euh, ku ko ca xamee bañ ko Eh, waaye loolu nag du kanami tasawuf gi dëgg-dëgg du kanami tasawuf gi dëgg-dëgg waaye kanam gi ko noon bi bëgg a wonee la ah, moo tax téere bi ba mu jeex amul fenn fuñ ci taggee tasawuf amul fenn nit fuñ ci taggee benn nit koo xam ne mu tasawuf la itam amul fenn fu waxee ne tasawuf baaxoon na wala mosoon naa baax wala am na ñaari fan yoo xam ne eh, mos na koo baax wala ñaari nit ñoo xam ne baax nañ ci tasawuf Euh, wala am na lenn lu tuuti loo xam ne baax na ci tasawuf loolu amul ci téere bi te téere bi mi ngi toll ci junni page yu manqué fukk ak juróom euh, tey nag ñu bëgg a dugg ci téere bi génne ci benn mbir bu bu ama am solo euh, ñu koy wax bunt bi nga xam ne moom la jagleel wàllum karaama wàllum karaama ci biir taqrir asxaas loolu nag mi ngi ko def ci euh, jukkib ñaareel bi comme téere bi ñaari xaaj la ñaareelu xaaj bi la ko def euh, te mooy timit mooy fasl bi nga xam ne moo mujj ci téere bi euh, boo ñëwee ci taqdisul as taqdisul ashxaas nag ci jukkib ñaareel bi ci page deux cent fa tënk nag al faslu thani bi nga xam ne moom la ak duppee at taqdiisu an naatiju an al inxiraafi fi fahmil karamaat maanaam taqdis gi muy tere te moom la moom lay wax ne moom la tasawu yi defal niti tasawuf yi moom lañ defal seeni sëriñ nee na am na ci genn taqdis goo xam ne mi ngi jóge ci ñàkk dégg gi ñu ñàkk dégg ñoom sufiyanke yi ñàkk dégg gi ñu ñàkk dégg karaama maanaam ñoom comprendre uñu karaama Euh, xamuñu nu karaama deme loolu waral na am genn gennuk taqdis genn màggal ak genn rëyal gu am ci ñoom gu ñuy defal seeni sëriñ te ñi ngi ko jaaree ci buntub karaama ak ñàkk koo dégg ca la loola soqi ko mu séddale ko nag ay pàcc yoo xam ne ñett la pàcc bu njëkk bi di jàngat karaama ci boppam ci luga ak euh, ni ko sharia déggee loolu duñ ca duñ ca dem ndax euh, gisuma man loola lum wuute ak li ci téere mutasawifa yi ci wàllu karaama loolu amu ci eh, ñaareelu pàcc bi itam mooy mabxas bi nga xam ne moom lay duppee ci diggante tàqale gi am ci diggante baat yi muy wax mooy al mujiza ak al ak lu ñuy tuddee al xawaariq al eh, yooyu itam ci biir boo liiree eh, mutasawifuun yi ak seeni tiit daanaka même tàqale googu moom moo ci am même wax yooyu moom moo ci am amul wuute wala boo gisuma benn point boo xam ne wuute nañ ko wuute na ko ak ñoom ci ci ci wàll woowu kon foofu jërul jërul dem mabxas bu mujj bi rek moom moo ñu ci soxal mooy mabxas bi nga xam ne moom la tuddee mafhumul karaama fi fikri suufi wa muqaaranatuhu bi mafhumi salafi saalih maanaam eh, pàcc boobu mi ngi ko jagleel ci karaama nan la ko suufiyanke yi déggee waxul nan la ko kenn déggee de alfikru suufi maanaam dégginu tasawuf ci boppam ñoom nan lañu déggee karaama nan lañ ko déggee dégg-dégg boobu nag dafa wuute ak dégg-déggu salafu saaleh biñ déggee ci karaama loolu la wax moo di ne mutasawifa yi niñ déggee karaama ak ni salafu saalih déggee karaama nee na ñaari dégg-dégg yooyu dafa wuute mu bëgg leen a comparé nag wax na nii lañ déggee ñoom salaf saalih nii lañ dégge ñoom nii lañ firee karaama salaf saalih nii lañ firee karaama loolu nag ci boppam moom moo amul mais dañ koy topp ci mabxas boobu euh, ñaari mabxas yu njëkk yi nag li tax ma tëb ko ku ne xam na ko ne amul wuute ci diggante xam karaama ci luxa lu muy tekki ak ci mafhumu sharia nan la ko sharia déggee ak nan la ko borom xam-xam yi définiré lan mooy karaama ak yu mel noonu loolu mutasawifuun yeeg ñépp ñoo ci yam benn wax la rek benn wax la dara wuute ci moo tax taarif yi muy indi ak taarifu mutasawifa yi benn la benn nga ñàkk a liir téere mutasawifa yi wala yu mel noonu dal la naka noonu itam tàkkale gi génnee ci mujiza ak karaama ak xawaariq cheytaaniya yooyu benn la ak mutasawifa yi Eh, beneen bi itam charte mu indi léeg sax doo xam charte yi fu mu ko jëlee eh, waaye charte mu indi eh, ci wàllu maanaam ne mujiza pour mu nekk mujiza day am nangami charte benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn yooyu tamit amuñ ci benn problème ak mutasawifa yi mu ne loolu mi ngi ko jëlee ci Qurtubi tafsiram ja naka noonu itam maanaam waaw naka noonu daanaka yim wax ci page boobu yëpp ak euh, pàcc boobu yëpp ñoo ñoo tolloo euh, ñu ñëw ci li nga xam ne rek mooy mafhumul karaama fil fikri suufuhumi salafi saalih loolu nag mi ngi ko tënk ci ñaari matlab ñaari pàcc pàcc bu njëkk bi mooy karaama ak ay dawaabitam karaama dafa am fuñ koy tënk dafa am nuñ koy jamaa ca dawaabit yim indi nag euh, xëy na mën ngaa am jafe-jafe fan la ko war a jëlee waye même bu fekké ne mo wax moko créer sax euh moto mutasawifa yi amuñu problème ci dawabit yoyu waaw mu teunk ko ci juróom-benni dawabit nak yo xamné manam ay teunk yo xamné ci nonu lañuy déggé karama ci ahlus sunnati wal jamaa te lolu moto mutasawifa yi amuñu ci dinañ ci jaar jaar bu jaar bu gaaw rek moy fi mu wax ne laysa min manhajil islam al ictimaadul kulli ala al khawariq lolu moy daabit bu ñëk bi moo ne bokkul ci manhaju lislaam di sukkandiku sa lépp rek nga sukkandiku ko ci ay xar baax ak ak ak ay karaama loolu tamit kenn werante wu ci ñaareel ba eh, xar baax du nit ki moo koy def wala boog du du du du waliyu bi moo ko man wala du yonent bi moo ko man wala yu mel noonu waaye ci yàlla lay jóge loolu tamit daabit boobu kenn werante wu ci beneen bi mooy alistiqaama maanaam dëggu jub xocc ca yoonu yàlla wa ala tariqil huda hiya aynul karaama loolu mooy dëgg dëgg karaama mooy loolu loolu tamit moom la mutasawifa yi wax eh, xëy na dañuy bëgg gaawantu ndax am fu fuñ jëm waaye yii yëpp mënoon nañ ko détaillé indi ay lu ëpp fukki téere tasawuf yoo xam ne wax jii lañu wax eh, beneen bi ñeenteel bi mu ne boroom karaama ji saaxibul karaama la budda an yakuna baidan an iddaawa daawi wal kadib wal kada kada maanaam ki nga xam ne mooy boroom karaama ji mooy sëriñ bi wala wali yu jooju faw mu nekk ku sori ay woote ku sori ak caaxaan sori ay wax lu dul dëgg yooyu tamit mutasawifa yi loolu la ñu wax karaama innama takunu li nusrati diin wa ilaai kalimatillah wa illa fala maanaam karaama ñaari ñaari mujj yi rek moo xaw a garaaw mooy juróom bi ak juróom benneel mooy fi mu waxee ne karaama e, dafa war a nekk pour dooleel diine ji su nekkul dooleel diine ji du nekk karaama loolu nag laa xamul fan fan lay tegee ndax it nit mën na laa di yow en tant que nit en tant que nitu yàlla nga wone karaama joo xam ne dana xam ne yow e, danga ko mën a e, xamal sa daraja yow wala boog sa maqaama ji la yàlla jox wala am maanaam karaama nit mën na ko wone ci loo xam ne doo ci gis yëkkati Eh, diine yàlla ji wala nangam nangam waaye kon maanaam circonstance yu bari mën naa taxal karaama jóg te loolu du tee mu nekk karaama loolu kenn waaye daal lu ci mënti doon amuñu ci benn problème moom karaama beneen juróom-benneel bi mooy eh, karaama du nekk mooy yàlla maanaam nga jël ak mooy yàlla def ko karaam loolu tamit moom la ñëpp wax loolu eh, kenn werantewu ci ak moom Euh, léegi nag yooyu ju wax yépp dañ ko doon résumé rek ak wax ne yii yépp wax na ko moom te yooyu daanaka bariwul problème ndax xëy na amul ñaari nit ñoo xam ne mën nañoo wuute ci loolu loolu moom euh, lu ñépp dëppoo la xëy na man maa yàkkamti ci ci loolu mën naa am sax benn ibaadu bu xamul lu xew mën naa jóge fële jàpp ne loolu mu wax noonu amul ci biir tasawuf waaye su ko kenn weddee rek incha allah su boobaa ñu door a génnee nag téré yi nga xamné ne ñoo wax David bu nek yan téré mu tasawifa ñoo d'accord ci loolu te duñu jeex wa té duñu jeex loolu inshallah allah bu ko kenn weddee ci la koy jar ñu ñu wax ci inshallah matlab bi tax ñuy wax mooy almatlabu al alkaramat inda sufiyya karama niko ko yi déggee ci niko borom tere bi waxe te noonu mu ko waxee nag jëmmi wax yim njëkk a wax rek ay njuumte la ay njuumte la waaye sos lay mën a nekk juum mooy nga wax loo xam ne da nga ne yaakaar na wala nangam boo dogoo ci nangam comme li Moustapha Cissé defoon bërki démb ne Aline sàll bu ñëwee fii Verona lay dal te bu dalee vero naa du julli ca jàkka ja xam nga loolu du yaakaar ne yaakaar naa ne falay dal wala am naa njortu gu kii ne falay dal te am naa njort ne mënoon naa julli yooyu yëpp nekku ca waaye dafa dogu wax loolu boo ko defee sos lay tudd su Alioune sàll génnee daat ne giñ naa ci yàlla musuma dal Verona si saa si sa wax ja dafay dafay lan dafay nekk aw sos te loolu nag maanaam doxalinu wahabiye la ñoom dañoo réussir ci benn mbir boo xam ne bu jafee jafe la mooy sos waaw fen nga xam ne jullit du ko gaaw a man boobu réussir dañ ko réissir bu baax a baax a baax moom la imaamu sukki doon wax ci tabaqaatu shafii eh, fii nag sëriñ bi dafa def lu mel noonu seen sëriñ ci baatu alkaramaat inda suufiya maanaam moom mi ngi fay leeral suufiya ni ñu fi ñu teg karaama wala boog ni ñu ko déggee ni ñu ko déggee loolu mi ngi ko wax ci page 293 déglul lim njëkk a wax daf ne inna awwala inxiraafin awwala inxiraafin suufiyin عندما يقرأ أي كتاب من كتب التراث الصوفي هو اعتمادهم الكلي على الخوارق واهتمامهم في مناهجهم على المبالغة في نشر خوارق الشيوخ وتركيزهم على اختلاق قصص كثيرة بالية ليرفعوا بها ما للشيوخ من والأولياء من مكانة ومنزلة في نفوس الأتباع مني li nit di njëkk seetlu ci drapage boo xam ne drapage soufianke yi la te soufianke yépp ñoo te moom la gëstukat bi di njëkk a daj su liiree bépp benn téere bu ci doon yaa ngi dégg bu baax maanaam mutasawif bi e, sànq maanaam jàdd aw yoon wi ñu jàdd yoon wëcca jiitu ci buntub karaama nga xam ne képp kuy liir ak téere boo mën a liir ci téere yi sufiyanke yi nee na téere boo mën liir ci téere sufiyanke yi E, jàdd jàddu yoon ba ngay njëkk a seetlu ca téere ba ak téere bu mu mënti doon mooy sukkandiku gu ñu sukkandiku ñoom e, sofianke yi dañoo sukkandiku kulliyan maanaam total dañoo sukkandiku sukkandiku gu jeex tàkk gu mat sëkk cent pour cent lañ sukkandiku alal xawaariqi ci ay xarbaax ci ay karaamaak yu mel noonu loolu ma laaj dëgg la wala du dëgg maanaam téere boo njëkk a liir ci téere suufiyanke yi yow en tant que gëstukat li ngay njëkk a seetlu ci dérapage mooy dañuy sukkandiku sukkandiku bu mat sëkk ci lan ci xar baax wala bokk ci ay karaamaak yu mel noonu est-ce que loolu am na wala amul euh, léegi nag yooyu ju wax yépp dañ ko doon résumé rek ak wax ne yii yépp wax na ko moom te yooyu daanaka bariwul problème ndax xëy na amul ñaari nit ñoo xam ne mën nañoo wuute ci loolu loolu moom euh, lu ñëpp dëppoo la xëy na man maa yàkkamti ci ci loolu mën naa am sax benn ibaadu bu xamul lu xew mën naa jóge fa fële jàpp ne loolu mu wax noonu amul ci biir tasawuf waaye su ko kenn weddee rek incha allah su boobaa ñu door a génnee nag téere yi nga xam ne ñoo wax daabit bu nekk yan téere mu tasawifa ñoo d'accord ci loolu te ñu jeex ah te du ñu jeex loolu incha allah bu ko kenn weddee ca la koy jar ñu ñu wax ca incha allah matlab bi tax ñuy wax mooy almatlabu saani alkaramat inda suufiya karaama ni ko mutasawifa yi dégge ci ni ko borom téere bi waxee te noonu mu ko waxee nag jëmmi wax yim njëkk a wax rek ay njuumte la ay njuumte la waaye sos lay mën a nekk juum mooy nga wax loo xam ne da nga ne yaakaar na wala nangam boo dogoo ci nangam comme li moustapha sise defoon barki démb ne aline sàll bu ñëwee fii verona lay dal te bu dalee verona du julli ca jàkka ja xam nga loolu du yaakaar ne yaakaar naa ne fa lay dal wala am naa njortu gu kii ne fa lay dal te am naa njort ne mënoon naa julli yooyu yëpp nekku ca waaye dafa dogu wax loolu boo ko defee sos lay tudd su aline sàll génnee dat ne giñ naa ci yàlla musuma dal Verona si saa si sa wax ja dafay dafay lan dafay nekk aw sos te lool nag maanaam euh, doxalinu wahabiye la ñoom dañoo réussir ci benn mbir boo xam ne bu jafee-jafe la mooy sos waaw fen nga xam ne jullit du ko gaaw a man boobu réussir dañ ko réussir bu baax a baax a baax moom la imaamu Subki doon wax ci tabaqaatu shafii euh, fii nag sëriñ bi dafa def lu mel noonu seen sëriñ ci baatu alkaramaat inda suufiya maanaam moom mi ngi fay leeral suufiya ni ñu fi ñu teg karaama wala boog ni ñu ko déggee ni ko déggee loolu mi ngi ko wax ci page 293 déglul lim njëkk a wax daf ne inna awwala inxiraafin awwala inxiraafin suufiyin yalqaahu albaaxisu عندما يقرأ أي كتاب من كتب التراث الصوفي هو اعتمادهم الكلي على الخوارق واهتمامهم في مناهجهم على المبالغة في نشر خوارق الشيوخ وتركيزهم على اختلاق قصص كثيرة بالية ليرفعوا بها ما للشيوخ من الأول والأولياء من مكانة ومنزلة في نفوس الأتباع من li nit di njëkk a seetlu ci dérapage boo xam ne dérapage yu sufiyanke yi la te sufiyanke yépp ñoo ko drapewu mooy te moom la gëstukat bi di njëkk a daj su liiree bépp benn téere bu ci doon yaa ngi dégg bu baax maanaam mutasawif bi e, sànq maanaam jàdd aw yoon wi ñu jàdd yoon wa ca jiitu ci buntub karaama nga xam ne képp liir ak téere boo mën a liir ci téere yi sufiyanke yi nee téere boo mën a liir ci téere sufiyanke yi e, jàdd jàddu yoon ba ngay njëkk a seetlu ca téere ba ak téere bu mu mënti doon mooy sukkandiku gu ñu sukkandiku ñoom e, sufiyanke yi dañoo sukkandiku kulliyan manam total dañoo sukkandiku sukkandiku jeex tak gu mat sëkk 100% lañ sukkandiku alal xawaariqi ci ay xarbaax ci ay karaamaak yu mel nonu lolu ma laaj deug la wala du deug manam téré bo ñëk liir ci téré soufiyanke yi yow en tant que kat li ngay ñëk sétlu ci dérapage moy dañuy sukkandiku sukkandiku gu mat ci lan ci xar baax wala boog ci ay karaama ak yu mel noonu est-ce que loolu am na wala amul euh, léegi nag mbir mi yemul ci ne maanaam boo demee ci téere yi da ngay fekk ñuy ñuy ñuy ñuy duñ fa wax karaama wala yu mel noonu waaye contreeru lim bëgg saxal loolu mooy am ci téere yi maanaam contraire lim bëgg a saxal te lim bëgg a saxal mooy mutasawifa yi dañoo sax maanaam seen lépp xar baax la loolu la bëgg a saxal loolu contraire lu loolu mooy nekk ci téere yi lim bëgg a saxal mooy téere boo ibbi da fekk mu fees dell ak karaama te loolu rek lañuy yittewoo lu loolu paanoog loolu moo am ci téere yi futuxaatul makkiya bii ma wax mi ngi toll ci juróom téeméeri bunt ak juróom benn fukk loo xam ne juróomi téeméeri bunt ak juróom benn fukk te mënoo ca gis bunt boo xam ne ci wàll woowu lay wax loolu kon tegtale ne te mooy téere bi gën a mag ci wàllum tasawuf léegi naka lañuy déggee waxam jooju mu wax moom lu dul ne lim wax loola amul rek lañ mën a wax loola du lu am mooy xam nga baax sa moo amul loo xam ne danga naan noo def cee jublu ne Eh, li ëpp ci téere yi wala loolu amul ci mën haj baxs de mën haj baxs baat booy wax dafa am lu muy si signifié kenn du wax ci baxsu nga ne téere amul ti amul benn téere bu wax nangam loolu kenn du wax ci baxsu su fekkee ne am na téere bu ko wax rek sa wax ji yëpp day daanu kenn du ko xam lu ne li nga bëgg a wax de mooy téere yi ëpp loolu dañ koy wax ci mbedd mi lañ koy wax loolu kenn du ko wax ci risaala ilmiya risaala ilmiya dañuy tere sax ngay dogg ci dara dara boo ci dogg même boo xamee ne nangam ji amul doo ci dogg ci ci ci baax waaye baax sa boo xam ne nag yow ña ña ngi koy ña ngi koy gaaral ñu war koo munaqasa ñu yàgg ñoom a far eh, te parewuñ pour dii ngat la ci benn affaire daanaka da ngay wax lu la neex waaye loolu moom amul ci benn mën xëju baax sa boo xam ne dogu googu am na fa lu dul ne la ngay dogu buñ ko xoolee na nekk lépp nekk dëgg maanaam boo nee ayu kitaabin boo xam ne min bi turaasi suuf yi boo ko ibbee da ngay fekk itimaad kulli alal xawaariq day fekk ne loolu moo am ci manhaj baax si loolu lay nangu mais nanguwul nga wax loolu ñu ibbi benn téere bu gën a ndaw bu gën a siiw ci wàllum tasawuf te fekkuñu fa li ngay wax kon li ngay wax dara dara dara amu ci te loolu kenn du ko def ci ci ab gëstu kenn du ko def ci baax kon eh, loolu kon bu kenn ñëw ne ah lim ci jublu mooy li ëpp ci kii bi ndax li ëpp lool boo ci jublu da ngay wax li ëpp ndax baat boobu am na ci arab ah, jullu kada wala aktharuhum wala eh, yaani mu'zamu al kutub wala yu mel noonu baat bi am na moo tax boo waxee beneen baat rek loolu nga wax noonu manhaj ilmi li mu nangu mooy loolu la ñu war a wëri su fekkee lool la baxsu bi jaar na yoon su fekkee du loolu nag li nga wax nii da nga war a effacé da ko war a effacé li wax nag téere bi gën a siiw alfutuhaatul makkiya gën a bari lu ñu koy dal ak di dal ci kawam borom wahdatul wujud moo sànq sufiyanke yi nàngam ak nangam ak yu mel noonu kooku téeram bi nga xam ne fukki xaaj la wala juróom-ñeenti xaaj te muy juróomi téeméeri bunt ak juróom-benn fukk li muy wax amu ci. yamul ci amu ci waaye contraire loola lañ cey liir ndax téere bi boo demee am na ñaari bunt yoo xam ne ci wàllu karaama lay wax. ñaari buntu yo xamne ci walu karama lay wax waye buñ ci démé nak nga xam la wax ak la Ahmed lodi di di wax dafa am buntu bo xamne moy buntu 194e buntu min ko tuddé yani babun fi ma'rifati maqami al karamat maqami al-karamat muy benn beneen beneen bunt ba ca tegu mooy 185 mu tuddee ko fii maarifati maqaami tarkil karamaat tarkil karamaat eh, loola lam cay xamle ca bunt yooya mooy dafay xamle ne istiqaama mooy dëgg-dëgg karaama karaama yii ñuy wax ni ay jéggi ndox ak jaar fii ak def lii def lii yooyu yëpp buy dikkal buy dikkal waa ji dafa war a dikk ci circonstance boo xam ne mënul def leneen lu dul loolu maanaam dangaa julli ci géej gi dafa am lu war a tax yow boo sañoon doo ko def wala yu mel noonu te loolu tamit loolu mooy karaama nit nit ñi maanaam karaama ji nga xam nit ñi loolu lañ tuddee karaama waaye am na karaama gu raw loolu gu gën loolu gu ëpp fayda loolu mooy karaama sàngam mooy sellal sa xol mooy istiqaama mooy jub ci yoonu yàlla mooy topp sunna mooy nangam loolu la loolu la mutasawifa yi loolu lañ jàppee ne mooy karaama dëgg-dëgg lool mën naa la ci jox téeméeri masaadir yoo xam ne loolu la ñu wax e, ñaareelu bunt ba muy tere karaama boobu daf doon wax ñàkk solo gi nga xam ne ñàkk na ko solo ak yu mel noonu ak ni nga xam ne noonu la ñàkk a tegtalee wilaaya du caagi ne foo gis karaama rek wilaaya fa nekk ak yu mel noonu yooyu la doon démentir waa léegi kuy démentir loolu kooku dafa ictimaad kulli ala al karamat wala ala al xawaariq waaw du dëgg waay boo ñëwee ci futuxaatul makkiya loolu nag dama baamtuwaat wax ne dama indi futuxaat makkiya comme lim gën a siiw ak li ko ñëpp xam nga xam ne bu ñu waxee futuxaat makkiya ñëpp ko xam ibaadu yi loolu lañu ñu gën a bañ lool la ñuy dal lool lañuy ñuy nàngam wahabis yi ngeen baal ma eh, ci loolu rek la ñuy wax ak boroom nga xam ne dañ koo génne ci diini jéeg yu mel noonu e, moo tax ma indi ko waaye mënoon naa indi yeneeni téere te ku nekk ci ñun tamit lu mu gàtt gàtt xam-xam xam na ay téere yu yu baree baree bari même mu tudd dinañ ci ñëw yi mu tudd sax lam wax amu ca e, loolu danañ ci ñëw waaye rek e, buñ ñëwee ci al futuhaatul makkiye ci juzu saalis ci page 552 mooy albaabu rabiu wa samanuun wa mia fi maarifati maqaami alkaramaat maanaam bunt bi li muy wax mooy lan wàllu karaama lay wax wàllu karaama est-ce que day wax diw ba mu defee nangam karaama sangam kara daf lay xamal karaama dëgg-dëgg lan la ci jublu ak karaama yii ñuy wax ni fan la tollu góor yàlla ya est-ce que lu ñuy damoo lu ñuy garaaw garaaw lu la wala lu ñuy def di wala ne kenn mënul lu mel noonu wala yu mel noonu wala dañ koy def di wala ñoom ñoo ko fent du ay mbir yu am walla ay njabarkat lañu wala yu mel noonu comme ni nga xam ne noonu la Ahmed loo waxee ci ci euh, liñ doon liir léegi euh, Ibn Arabi al-Xaatimi dafa wax ne dafa moom bunt bu muy ibbi rek daf koy ibbee ay wayam ay way yu muy tek doora indi buntu bi way yoy nak moy teunk buntu bi ci bopam daf ne ba'dhu ar-rijali yara kawna al-karamati dalil sidqin ala nayl al-maqamati wa annaha aynu bushra qad atat ka biha rusul al-muhaymin min fawq fawqi alsamawaati وعندنا فيه تفصيل إذا علمت به الجماعة لم تفرح بآياتي كيف السرور والاستدراج يصحبها في حق قوم ذوي جهل وآفات وليس يدرون حقا أنهم جهلوا وذا إذا كان من أقوى الجهالات وما الكرامة إلا عصمة وجدت في حال قول وأفعال ونيات تلك الكرامة لا تبغي بها بدلا واحذر من المكر في طي الكرامات li muy wax mooy lan dafa am ñoo xam ne dañoo jàpp ne karaama ci boppam maanaam mbég ak ak mbégte la goo xam ne yàlla moo la ko jagleel moo la ko kii mbir mu rëy rëy la boo xam ne eh, da nga cee war a bég yàlla moo yónni ay malaakaam ñu yanki wala lool wala ñu man loola kàttan googu nga mën a def yooyu loolu mooy karaama nga xam ne bu fu mu feeñ rek xamal ne foofu wilaayaa fa nekk nee na loolu am nañu jàpp loolu mu ne nag ñun mutasawifa yi wa indana dañ cee am ak tàqale nag dañ cee am tàqale tàqale googu nag ku ko xam doo doo doo doo doo bég wala boog ngay ngay damu ci karaama sàngam wala yu mel noonu ndax dafa am lu ñuy tuddee istidraaj te loolu dafay bokk ci karaama léeg bokk ci karaama léeg-léeg eh, te karaama dëgg-dëgg nag mu ne karaama dëgg-dëgg mooy mooy eh, yàlla musal la wala garde la ba doo ba nga am ba doo am rëcc-rëcc ci say wax ak say jëf ak say yéene lépp sell loolu mooy karaama mu ne loolu mooy karaama ji nga xam ne nag bu ko wecceeg dara leneen lu dul lii nag ci ay xar baax ak def yoo xam ne dafa xëtt dafa xotti ak baax loolu bul jàpp ne e, foo ko gis rek karaama lay doon waaye istidraaj mën na caa nekk te istidraaj mooy loo xam ne yàlla daf koy def di ko naxee ay noonam ñu jàpp ne ñoo ngi ci dara te fekk ak mbugal moo leen di xaar waa kii moom dafa am ictimaad kulli ala al wala mu door a ñëw nag door a wax ne fal aamatu laa taarifu al karama illa al maanaam nit ñi sama maas gi ak maasuk docteur Ahmed Lo geeg maasuk yeneen ibaadu yeeg yu mel noonu wahabisi te ñooy awaamu naas mune ñooñu xamuñu karaama lu dul xis rek lañ xam yooyu lañ xam ci karaama maanaam li nga def nii nit ñi gis ko luñ mën a làmb daj lool mooy karaama ci ñoom mooy nga wax lu lu ñëwagul wala nga dox ci kaw ndox bi wala nga xotti jawu ji wala nga lem suuf si wala nga wax dara ñaan dara mu nangu ci saasi yooyu lañu xam amma bi moom laa taariful karamaat illa misla hada mu ne nag loolu du kara loolu karaama la waaye karaama dëgg-dëgg gi tax mutasawifuun yi di wax loolu tuuti la ci karaama jooja wa amma alkaraamatu almaanawiya fala yaarifuha illa alxawaasu min ibadillah wal aamatu la taarifu dalik karaama ji dëgg-dëgg du li gaa yi foog te karaama ji mooy wa hiya an taxfada alayhi aadaaba alsharia wa an yuwaffaqa li ityaani أن تحفظ عليه آداب الشريعة وأن يوفق لإتيان مكارم الأخلاق واجتناب سفسافها والمحافظة على أداء الواجبات مطلقا في أوقاتها والمسارعة إلى الخيرات وإزالة الغل والحقد من صدور الناس من صدور من صدره للناس والحسد وسوء وسوء الظن وطهارة القلب من كل صفة مذمومة وتحليته بالمراقبة مع الأنفاس ومراعاة حقوق الله في نفسه وفي الأشياء وتفقد آثار ربه ومراعاة أنفاسه في خروجها ودخولها يبري بري بري دول شيخ من فهذه كلها عندنا موي كرامات الأولياء المعنوية التي لا يدخلها مكر ولا استدراج من كرامة karaama gi موي كرامة دق دق دو ñun yi ñu mooy karaama mooy tënku ci yoonu yonent bi salaa ak eh, mën a sàlloo ay jikko yu baax ak won gannaaw yu suufee ya ak nga xir ak sàmmonteeg yi war ci jullit bi te koy defee ca waxtoom ba muy julleeg muy yu manti doon ak fuñ la fekk ngay njëkkanteeg nit ñi ci jëf lu baax eh, taxqiq sa bopp ca loola nag loolu mooy karaama ci ñun fexe sa xol bi dara du ci nekk ci mbañeel ak kiñaan ci jullit ñi eh, fexe sa xol bi sell ci bépp jikko bu ñaaw fexe di sàmmonteeg di bàyyi xel sa nokki gi ngay nokki gi ngay dugal ak gi ngay génne nga bàyyi ci xel yépp mu ànd ak i teggin eh, eh, yooyu mooy karaama nit yàlla yi karaama maanawiya gi ñuy wax te loolu mooy karaama gi dëgg-dëgg waaw loolu mooy karaama gi dëgg-dëgg Eh, loolu nag moom la ñu jublu ñun ci karaama bu ñu ko waxee waaye karaama yii ñuy def te mooy def eh, def lii loo xam ne dafa xotti ak baax nee na loolu eh, taxul woonu juggaa yi même suñu ko defee dañ koy def lan dañ koy def loo xam ne ñàkka lay doon wala li ñuy wax nafsatu masdura masdura maanaam loo xam ne jógewul ci coobare doomu aadama gi sàkkuwu ko te bu amee sax dafay tiit dafay am lu ko metti loolu dafay dafay nangam ñun gis nañ ay sëriñ su bare bare bare loo xam ne ñun ci sunu Sénégal gii rek eh, ci wàll woowu daanaka dañ ci def lu bare bare bare bari suñu ko defee dañ koy réccu eh, dañ ci am eh, kersa ca def ga duñu bëgg ku ko nettali ak yu mel noonu yu loolu mooy mbir mi dëgg-dëgg mais ana itimaad kulli alal karamaat ana téere boo ibbi da ngay fees fekk mu fees dell ak karaama ana loolu ci téere bi ak ci yeneeni téere moo tax mu nettali fii moo tax mu nettali fii ci place boobu eh, Abu Yazid luñ ko laaj ne ko eh, benn waay eh, dafay dafay dafay naaw ci jaww ji kara karaama jooju loolu du dara mooy lan ci day naaw ci jaww ji xam nga karaama bu demee ba nga tolloo ko picc nee na loolu amatul solo abu yazid il bi mooy wax loolu waaw ah, diw de e, dafay jóge e, ci penku dem sowu ama ju rëy rëy la mu ne loolu du dara iblis ci xef xippi lay jóge soowu dem penku karaama boo ko bokkee iblis amul solo kon li am dëgg dëgg te am solo mooy nga teg sa tànk fa ko yonent bi fa ko yonent bi tegoon loolu moo am solo loolu boo demee ci masaalikul jinaan loolu nga fay fekk boo demee ci yeneen téere yi ci wàllu tasaw loolu nga fay fekk boo demee nit mu tasaw yu fuun yi ci boppam gaa yu baax yi seeni wax loolu moo ci am loolu moo ci am loolu moo ci am eh, kon loolu lenn la boo ñëwee ci bunt bi ci tegu te mooy bunt bi nga xam ne mooy maqaamu tarkil karaamaat eh, boobu itam daf cay soññee di wone ne karaama wëri su koy wone maanaam ni ab yonent dagane wala boog waree ci moom mu génnee mucjiza noonu la waree ci ab waliyu mu denc karaama kee daf koo war mu feeñal ko kii da koo war mu denc ko loolu la doon saxal ci bunt bi yépp ak di wane ne karaama wane ko telewul ne waliyu nga te loolu Ahmed loo wax na ne charte la ci mutasawifa yi dañoo gëm ne wali yu wu nekk da war a am karaama boo ko amul doo wali te loolu dara amul ci wax wax jooju dara du ci dëgg waaw li Ibnu Arabi wax mooy ne karaama am karaama taxul nga nekk wali yu doon saxal ci bunt bi ba bunt bi jeex moom xëy na dadul dul da dul liir futuxaatul makkee wala sax est-ce que am na ko loolu la ñuy wax بونيويتي الباب الخامس والثمانون ومئة في معرفة مقام ترك الكرامات فوفو دكو تامبلي وي وي وي تموتنك موتنك منتبة من ترك الكرامة لا يكون دليلا ومقيلا إن الكرامة قد يكون وجودها حظ المكرم ثم ساء سبيلا فاحرص على العلم الذي كلفته لا تتخذ غير الإله بديلا ستر الكرامة واجب متحقق عند الرجال فلا تكن مخذولا وظهورها في المرسلين فريضة وبها تنزل وحيه تنزيلا لم وحني مم لا ياتلاتك مانا وي وي مي وخ مو تنك بنتبي مني مانا مياك دف كرامة تك تلول ني يو دو وليو دف كرامة يتم تك تلوكو مني نيت منس نكو جوخ كرامة بفره waye mu mujj dal di nekk ab mana man na biter ñuko manam man na am ñu jox ko karama mu nek wali joge ci nek ak caay-caay ak duggu ci caay-caay gu metti kon nak xam-xam moy mbir mi te xam-xam bi mu jublu nak wutul xam-xamu tere yi de xam yalla moy mbir mi mu ne nëbbu lu war la deug gu wer feng la war gi mu war ci nit yalla yi gor yalla yi loolu eh, lu fés la dafa war ci nit ki mu nëbbu karaama bu ko ñàkkee def loolu moo gën su demee ba def ko day fekk mu mu rëcc ko mënu ci dara yàlla bëgg koo jaarale ci loxoom ngir wane dara jaam ak yu mel noonu mu ne nag wa zuhura fil mursalina farida maanaam yonent yi moom ñu wone ko farata la ñu wone seeni xar baax farata la waaye ولي بي مو ني خرباخام دو فراتا مانام مو نيبوكو موي فراتا تي موم نيبو خرباخ بي موي فراتا تي موم لي لا متصوفوني واخ سي عباس تي وايام واي موي واي متصوفوني رك داف ني ستر المقام على ما كان ديدنهم والحالهم بين ابدان واوتاد مانام متصوفوني نيوم يغنن تي دراجي جي غنا كاوي waye neub sen maqam nak lolou len xamé والحرب بين أخي الدعوى وبينهم نار تلظى دواما ذات إيقاد maanaam foo leen fekk dañuy bañ ak woote mutasawifu ni foo leen fekk dañuy bañ ak woote kuy woote sax doo leen neex kuy woote sax doo neex eh, way yooyu mu way nag moo tënk buntu ba ca la sukkandiku nag wax ne war na ci mazhabu eh, mbooloom mutasawifa yi mooy mooy eh, wone karaama wane karaama wala wane xar baax lu war la ci yonent waaye nëbbu xar baax lu war la ci ab nitu yàlla ab nitu yàlla beneen bi mooy xarbaax bu génnee cadre sharia kenn dootu ko jël <laughs> yii yëpp maanaam daf koo wane ci téere bi kii day maanaam ictimaad kulli alal karaama lañ ko tuddee wala lan lan lay tudd kon mutasawif dañoo ñëw ngir cadre ne karaama lii la lii mooy karaama et puis cadre ne karaama du mooy mbir mi dëgg-dëgg du nit bu defee karaama rek moo raw ci gaa yi nit yàlla yi daan def karaama sax buñ ko defee amuñu lu leen neex ca loola dafa am lu leen poussé bañ def loolu nga jàpp ne Serigne Touba su fekkoon ne mi ngi dox ci ci tefes gi nii rek wala mi mi ngi am oto wala mi ngi mënoon a wàcc ci julli ci suuf si noonu dana dem ba ca géej ga di fa julli nga jàpp ne su amoon beneen solution dana dana fa bàyyi solution booba di wone ne moom mën naa taxaw ci géej déedéet waaye ñoom dépassé nañ foofu suñ defee dara loo xam ne xar baax la tax neexu leen même sax bëgguñu koo nettaliwaat ñii mooy nitu yàlla yi waaye nit yàlla yi comme li Ahmadou wax dañuy fen di di di di wax ay def naa nangam te mën naa am sax defuñu ko ñoo ko tey ngir bëgg nit ñi màggal leen ak yu mel noonu waaye loolu Ahmed Lo yaa toll ci loolu yaa toll ci wax lu dul dëgg ak tollu ci di bëgg nit ñi faalaak yu mel noonu nitu yàlla dafa dépassé loolu soo bëggee dégg-dégg nit yàlla dépassé na ultime bi nga taxaw man ak yow ñoo ci nekk maanaam man ak yow ñoo bëgg ku ñu faa ñooy wax ngir nangam ñooy am bànneexu bakkan ñooy am nangam ak nangam nitu yàlla yi ay nit yàlla la xol yu sell moo leen yóbbu ci daraja yi nekk boo ko bëggee nag dangay ngay sa xol yéeg xam ko Euh, kon euh, waxu ibnu arabi ji ak ñaari buntam yi mu ibbi benn bi muy wax ci karaama am na lu am la lu yàlla di tari la jaamam la waaye amu ci lenn loo xam ne daf koy def jaam bi war caa dàmm wala yu mel noonu waaye sax ñoom nit yàlla yi koy def daanaka du nekk li leen neex ndax karaama dëgg-dëgg du loola karaama dëgg-dëgg ci wàllu xol la karaama dëgg-dëgg ibnu arabi wax na lan la ak la ak ak naka la mooy niñ ko waxee sànq te yeneeni téere yu baree bari wax ko loolu mënoon naa cee indi lu baree bari ci yeneeni téere am na téere bu tudd al wali wal wilaya ku ñuy wax docteur Asim Alkiyaali mi ngi dund ba léegi damay mën a jokkoo moom di waxtaan ak moom moom moo ko bind ci wàllu day tax taxqiq téere yu bari ci wàllu tasawuf Euh, moom moo ko bind alwali wal wilaay boo fa demee da nga fekk ay masaadir yu bare bare bare yoo xam ne noonu lañ définiree karaama définir yuñ ko rek affaire dafay def loo xam ne dafa jaaxal nit ñi nit ñi jommeeg yu mel noonu waaye teg sa tànk fa yonent bi tegoon tànk ba loolu mooy karaama ci mutasawifa yi dëgg-dëgg loolu mooy loolu mooy mbir mi euh, ak di tere nit ki muy wone karaama ak di wone ne karaama du caagee ni bu ko nit ki defee rek mooy egg na fa egg na fu kawe kawe kawe nit mën naa def karaama nit mën naa def karaama te maanaam ñeneen raw ko fuuf te defuñu benn karaama benn karaama defuñu ko loolu na Arabi nettali na ci lu bare bare beneen bi karaama bu génnee ci cadre sharia dañ lay duma maanaam masalan ngay jaayi karaama ba wax loo xam ne wëree su ko wax ci diine neen dañ lay dañ laa war a ñàdd loolu wax na ko wax na ko fii ba tudd ci sax xalaaj man jaraa majraahu wa man jaraa majraahu wax ne su defee loo xam ne dañ leen a war a xadd ci li sharia tëral dañ leen a war a rey dañ leen a war a rey comme ni ñu def xalaaj ka iqaama xujja ci moom ba rey ko loola su maanaam su wax ji wéree daal loola moom day am yool moom kooku du am bakar mukk ci lolu benen bi woné ne amna nit ño xamné man nañu def karama ci defuñu ko mu misal ci comme Abu Saoud ibn Shibl ñukoy tuddé aqilu aaqilu li tax ñu tuddé ka aqilu zamaanihi moy dafa mëna def karama am tasarruf ne yàlla may na ko loolu mais duko def mais duko def lan moy sa karama nak mëna julli juróom ak tok di xaar dé euh ak fo fekk Euh, maanaam gémmiñ ga ma ngay liggéey mooy ma ngay tudd yàlla euh, tànk ya ma ngay dox dox ci loo xam ne lu neex yàlla lii mooy karaamaam moom te kat wali yu la wu ñëpp nangul ak wilaayaam def karaama du problème am ak yu bëree bëri fii tamit danañ fi seetlu al abdu abdun wal rabbu rabbun wal xaqu xaqun wal xalqu xalqun yooyu bokkoon na yi ñu doon tuumaal ibnu arabi ak yu mel noonu léegi nag ñu ngi ko bëgg ko jeexale maanaam wax rek ci lu gaaw a gaaw a gaaw ay karama yu bare bare yu ñëw ci téré bo xamné daf doon wax ci ibnu taymiya te moy téré bi ñuy tuddé al a'lam al aliya te ku ñuy wax umar al bazzar di talib ibnu taymiya da talif téré bobu tënk ko nak ci juróom ci fukk ak ñeenti buntu fukk ak ñeenti fasl faslu juróom ñeenteel ba nag fii zikri baadi karaamaatihi lenn ci karaamay ibnu taymiya lay tudd léegi loolu kon dañ koy tugal ci al ictimaadul kulli ala al karamaat tudd na ca tudd na ca ca foofa ci biir karaama yooyu xëy na waxtu yi moo dul maye loolu ñu ñëw indi téere beeg yooyu te téere bi ñëpp ko xam eh, tudd na ca ay ay taalibeem yoo xam ne dañoo nekkoon ci benn bërëb di waxtaane ay masala di ko werante ñu ne buñ demee ci ibnu taymiya ibnu taymiya danañ ko laaj nangam nangam dañoo ñëw nuyu ibnu taymiya bala ñuy wax dara ibnu taymiya wax leen masala yi ñu doon waxtaane yiñ doon werante ak la ca wér daal leen di faram-fàcce lépp loolu te sama problème nekkul ci affaire bi yow noo koy traduire noo koy déggee yow mi may déglu problème bi xam nga fan la nekk kii solo affaire bi kii nettali affaire su paree lan lay wax moom day wax ne loolu nag ñun ñëpp nag ñu naat yéemu ci kashfu bi nga xam ne am na ko ak karaama ji nga xam ne yàlla defal na ko mu mën a xam li nekk ci sunuy xawaatir ah, ñoom ñooy wax loolu Eh, bokk na ca ca yem indi mooy koo xam ne dafa ñëwoon dugg cib dëkk eh, yorul dara dara ci loo xam ne mën na koo lekk mu jékki-jékki Ibnu Taymiya fekk ko fa ne ko yaa ngi nii nag yuroo dara loo loo lekk yaa ngi ci dëkk bi tumuranke am téel lii nga kii ko moom mu ne loolu yàlla mi ngi ko ko defalee ci karaama Ibnu Taymiya yàlla xamal ko moom palaas ba mu nekk ak métit wa ko fay dal ci xiif ci mar ci tumuranke ba ibnu taymiya mën a dox ak tànkam ba foofa ba fekk ko ci ruq bam nekk ba jox ko lam soxla ci lekk loolu ci karaamaatu ibnu taymiya yi la ko waa ji boole naka noonu e, ibnu taymiya da daan woo ay taalibeem ne dem leen ci place sàngam boo leen demee da fekk ku tëdd kooku dafa feebar te amul kenn ku ko dimbali ngeen indi ko waaw ngeen indi ko ñu faj ko jox ko lum lekk nangam nangam kan moo ko xamal loolu kan moo ko xamal ne am na place sàngam ku fa tëdd foofu loolu ci karaama ibnu taymiya la ko waa ji boole benn waay itam ñëw na feebar ab guddi ci Dimashq toog ci ab ruq ci taatu garab e, guddi gu lëndëm këriis dafa jekk-jekk ibnu taymiya teg loxoom ci bopp bi daat koy ñaanal ne ko jaatil aafiyatu maanaam jàmm dikk na mu wér ci saasi loolu ci karaamaatu ibnu taymiya la ko waa ji boole e, nit koo xam ne dafa ŋàbb aw téere téere bi ay xas lañ ci def maanaam dañ cee hijaa ibnu taymiya garde gim garde téere bi rek denc ko loolu moo ko indil ay musiba yu baree baree bari ba mu demee ba xelam dem ci loola mu lakk téere ba ci la xéewal yi tàmbali ci kawam loolu ci karaamaatu Ibnu Taymiyya la ko waaji la ko waaji boole naka noonu nit ñëw na ci Ibnu Taymiyya nuyu ko fekk nit kooku mi ngi yor xaalis Ibnu Taymiyya waxu ko dara waxu ko ne ko soxla nga dara wala nàngam mu dem ba yoratul dara mu ñëw nuyu Ibnu Taymiyya Ibnu Taymiyya ne ko li nga yoroon lépp jeex na am teel lii mu ne nag yàlla daa defal Ibnu Taymiyya kashfu ci mu xam ba mu yoree xaalis mu xam ne yor na xaalis bañ ko wax dara ba mu yorul xaalis mu mën koo woo jox ko li nga xam ne moom la soxla nee na loolu ci karaamaatu Ibnu Taymiya la ko yàlla defal bu mu ci waree rek dana war a aytu dalika xaalan min axwaali cheikhi wa min karaamatihi ala allah beneen bi itam ay maguul yi biñ ñëwee Tatar biñ ñëw biñ ñëwee Cham ngir nangu Dimashq Ibnu Taymiya def ne leen bég leen bi sàngam bi sàngam yéenay gañe maanaam yéen da ngeen gañe gaa yi te ci bis sàngam ngeen leen di gañe te na ko Ibnu Taymiya waxee noonu la amee e, loolu mu ne ci karaamaatu Ibnu Taymiya yi la bokk Ibnu Taymiya ñëw na ci ab hôpital lii yëpp ci ci ci karaamay waa ji de ba xam ñoom dañoo am ak sukkandiku total ci ay xarbaax e, Ibnu Taymiya ñëw na ci hôpital fekk ñu feebar mu ñëw ba tiim benn xale benn jeune daat koy teg loxo ñaanal ko mu wér ci saa si mu ne ko nag lu tax nga bàyyi sa dëkk sa jabar ak sa ñeenti doom ak sa ñeenti doom euh, bàyyeeloo leen dara ñëw toog fii demal nga dellu sa kër ga lan moo ko xamal ne am na fa jabar am na ay ñeenti doom lan moo ko xamal loolu léeg nag gars yi wax ne arbaan bi mooy arbaa ay arbaat ayyaam waaye ba tey kan moo ko xamal ne arbaat ayyaam la fi am wala arbaat ayyaam la gëj ca kër ga ba tey ci karaamaatu ibnu taymiya euh, la bokk naka noonu waa ji boole na ci karaamaatu ibnu taymiya ci boppam am benn waay boo xam ne dañ ne ko euh, dañoo ñëw ne ibnu taymiya am na benn waay boo xam ne dañ koo fal Égypte lañ ko fal mu nekk euh, mu war a nekk ab àtte ab euh, mu nekk ab xaadi di àtte ji te bu demee foofu ba jël fonction ba dafa am kum war a rey kum ne moom lay rey moom lay àtte ci moom àtte rey te kooka nitu diine la kooka nitu diine la léegi ñu ñëw ci Ibnu Taymiya rek ñaanal ko ngir yàlla wëlbati xelu kooka ngir bu demee bu mu rey kooku bu jëlee fonction bi Ibnu Taymiya ne leen waa jooju ngeen di wax naan ma nga jëm Égypte ak yooyu sax moom du àgg Égypte waaw du àgg Égypte fekk muy dund moom ci yoon wi lay faatoo kan moo ko xamal loolu loolu ci karaamaatu Ibnu Taymiya la bokk waa ji bi muy dugg Égypte la faatu nga xam ne bi ñu ko dugal Égypte dañuy dugal néew la ñuy dugal ñëw suul ko Égypte Eh, te mu xaqiqu téere bi wax na ne kooku Jamal Kamaluddin ibnu Zamlakaani la waaw ah. eh, bokk na ci karaamay ibnu Taymi itam nee na bari na lool mooy li Moustapha si si la doon wax keroog mooy ne képp ku ko bañ yàlla dana la nattu nattu yu méttee métti yii yépp ci ay karaama ibnu Taymiya la léegi lan moo tax waa ji doon tudd karaama yi ci téere bi pourquoi est-ce que dafa sukkandiku torop torop li ko yitteel rek ci karaama moo tax wala daf ciy jublu wane ne sëriñam moo fi raw moo tax mu am karaama yi wala lum mu ci mënti doon kooku laajub Ahmed Ahmed Lo moo war tontu loolu ba xam loolu dañ koy tuddee itimaad kulli alal karaamaat loolu itam moom ngay gis boo demoon ci jawaahirul maani da gis bu demee ba ca jeexintal ba mu wax lenn ci ay karaamaam boo demee ci manaqibul imaami Ahmad boobu timit ay buntu la yu baree bari. أمنا بنتو بوخانة موي الباب الحادي والستون موي بنتو جروم بن فكيلو بنتو جروم بن فكيلو بنتو أكبن موي في ذكر كراماته كراماتو ابن أحمد بن حنبل موم لي نتلي فوف لما نتلي نك تي أي كرامو موم دفا أم يوخانة دفا غراو لول أحمد بن حنبل تي غاتل مسنا دي ديكتي بن خالي خالي بي بيك بي دمو أحمد جوخكو أب بيغم مايكو بيغم موم أحمد bi mu ko mayee bigam mu dem di tiitaroo lool nag ne Ahmad ibnu Hanbal moo ma may big bii big bi bigu Ahmad ibnu Hanbal la nee na big bi bañ ko tegee ci ëkk maanaam tàndarma tàndarma gi dafa jee dafa jebbi big bi big bi ci boppam loolu ci karaamay Ahmad ibnu Hanbal la bokk bokk na ci karaamay Ahmad ibnu Hanbal itam benn xale boo xam ne yaayam dafa feebar lu tolloog ci ñaar fukki at yoo xam ne da koo paralysé mënut dox yaay ji ne ko demal ci Ahmad mu ñaanal ma bi mu demee Ahmad ne ko mu ñëw sax gisul Ahmad mais dafa fëgg rek Ahmad ne ko loo soxla mu ne ko sama yaay moo feebar ñaari fukki at mënul dox ma bëggoon nga ñaanal ko euh, léegi daati delloo xale ba ba mu delloo ca kër ga euh, dafa am ku ko dab ne ko man de ba nga fa jugee laa dégg Ahmad tàllal loxoom di ñaan waa ji daw ca kër ga xale bi ba mu dawee ca kër ga ba mu fëggee yaayam ci boppam moo tijji bunt bi moo dox ba ñëw ibbi bunt bi nga xam ne loolu ci karaamay Ahmad ibn Hanbal la bokk ab lakk amoon na kër Ahmad ibn Hanbal tamit kër doom ja Saalih ibn Ahmad Fatima doomi Ahmad ibn Hanbal moo nettali loolu mu ne Ahmad ibn Hanbal euh, dafa amoon ab yëreem boo xam da ko may doom ja doom ja Saalih doom ji daat nag am lu ko metti lool ci lakk gi nga xam ne yére baay ji daf cee bokk te yére boobu nee na daf ci daan barkeelu di ci julli di ci barkeloo te loolu moom Ahmed Lo daf koy weddi waaye Ibnul Jawzi moo nettali loolu eh, nee ba bañ nekk ba mu nekkee di mettitu lool nag bi gaa yi duggee ba vérifier bagage yi lépp a lakk ci kër gi benn mbir rek moo lakkul mooy yére boobu yére Ahmad ibn kese moo lakkul ci kër gi yépp ba mu jeex ah Ibnul Jawzi ci boppam nee moom am na eh, ab inondation bu amoon ci Bagdad tiirim yépp yëpp yëpp yëpp moo moo suux ci ndox bi moo tooy téere yëpp a yàqu benn téere rek moom moo yàquwul te téere ba kat ñaari fooy moo nekk ci biir téere bi te ñaari fooy yooyu mbindum loxoom imaam Ahmad la te Ibnu Jawzi nee na looloo tax looloo tax affaire bi kiiwul de tooyul maanaam benn téere moo mucc te téere ba benn fooy a nekk ci biir te biir fooy booba mbindum imaam Ahmad la moo tax ak yu bare baree baree bari al imaamu shafii manaqibul imaam shafii bu bayhaqi boo ci demee dana la nettali ay mbir yu baree bari imaamu shafii lenn rek doy na ci bi muy faatu ay nit ci ay taalibeem dañoo daje ci moom mu wax leen ku nekk la muy mujje ëllëg yow danga faatu ci sàngam yow danañ la sonal waaye yàlla dana defal jàmm yow yow yaay tasaare samay téere yow yow yaay def nangam rabi mi ko doon nettali ne ni imaam Shafii waxee loolu noonu la ki loolu ci buntub karaama imaam Shafii la de euh, ca la ko tuddee nga xam ne karaama moom du jeex ci téere yi est-ce que nag fuñ tudd karaama fu nekk dafay tegtale ne ka ko tudd moom wala boog téere yooya dañoo am ictimaad kulli ci karaama loolu Ahmed loo mooy tontu loolu. léegi nag su ko defee karaamay sëriñam yii nga xam ne amul benn dalil ci sunna yooyu itam lu ñu war a tontu la lu ñu war a tontu la ay xam xëy boo ngi ci biir ay woote woote man lu nekk a ngi ci biir woote fu nekk fu nit nekk nga gis ko mu ngi ci biir woote ne lu bokk ci yow dara du ko lakk loolu mi ngi ci biir eh, yu bare bare bare biri ngi ci biir moo tax ñiy taxqiq téere yi sax ñoom dañuy bañ a bañ a bañ ba sonn ci hamish yi di kaas rek waaw li ñu wax fii ci biir téere bi li ibnul jawzi indi lii loolu bidaa la nangaman bidaa la ibnul jawzi moom moo wax loolu ibnu taymiya moo wax nangam ak karaama yi nga xam ne def na ko yooyu yépp ay xar baax la yoo xam ne ibnu taymiya def na ko nette lañ ko ci ay téeréem kon li ñuy jàpp mooy wahaabiye yi dañoo am ictimaad kulli ci karaama ndax téere ibnu taymiya benn téere la rek lañ fa indi ci karaama kenn xamul nu mu toll téere imam ahmad la ci ibnu jawzi indi ci ay karaama imam ahmad kenn xamul nu mu toll la bayhaqi indi ci téere manaqibul imam shafii lam ci indi ci ay xarbaax kenn xamul nu mu toll léegi loolu lépp dañ koy loolu lépp dañ koy féetale rek ci Euh, wàll woowu kon ñi ngi bañ guddal nañ ba pare sax waaye euh, namoon gaa yi ak euh, newoon faaw suñu amee jot ñu def benn barkeelu ci benn wax boo xam ne nekk na ci téere bi en tout cas yi mu ci waxaat teg ko ci yëpp dana ci ñëw par benn par benn incha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ Mouhamadou Kama ñu ngi lay nuyu di la ziyaare di rafetlu itam. waxtaanu am solo bi nga xam ne yaa ko def te mu ngi liggéey bu rëy nag boo xam ne ahlu sunna wal jamaa war nañ koo fonk comme ni ko fonk yow nag nga doon ci jàmbaar lool waaye di ko def defin wu set tam fa saaxa ah, ahlu sunna wal nag yoon wi nga jaar rek les leen xame mooy subahaat yi nga xam ne mushabbiha yeeg ñi mel noonu nga xam ne ñoom ni sub kii waxe wax lu dëgg ngir eh, sosal ki nga xam ne dañoo wooteek ñoom moom yàgg nañ ci buñ ko defee rek nga daal di ñëw leeral day am solo waaye tey nag ni nga jàgg jàggee góor gi nag metti xam nga yow da nga koy yëkkati yëkkati bu benn tànk loolu suuf nga xam boo ko tegoon ci gànnaaw sax mu tane waaye yow da nga koo teg ci kekk naa moo tax dongaam yi nag buñ jégee fii ñuy mer di dal ci sa kaw ak yooyu xët xët ji ñuy accès ak saaga yooyu loolu koy waral ni ngay daanee seen seen waa ji rawat na ci diggaay doon kiyam day daa metti nag danga koo rocc benn par benn dem ci ibnu arabi moom gën a yeb weddee ci la mu wax di nga mam jaar wuu tey moom tey tey ni ko tey tey moom da nga koo jàggee jàggee jàggi nga xam sax wuu jilub tey bi daa metti na Moodu dee ko daan ndànk na nga yow tam sëñ Moodu <laughs> xam nga dama defee ne da doon copie di collé téeréem bii yaakaar naa nasx nas nasx wala lasq ci la ci la ko taalif bi ndax li li la koy defal mooy texte yi dama lay jox misaal rek fi ne boo xoolee téere bi ci bi wax ci burul am na benn boobu naa al imam Shafii moo ko wax te texte boobu kenn mënu ko génne ci ci ci téere al imam Shafii na ay wax yoo xam ne da koy da koy dagg noo xam ne yaakaar naa ne lu nit ñeme-ñeme yàlla doo doo waroo mën a daggee ne moom texte mën naa ci jëlee misaal yu bari comme al imam al ak ñeneen ñoo xam ne day lijjanti seeni wax ba jëmale ko foo xam ne jëmmi waaye ci bopp boppam safaan ba la wax fa mu ko doxale yooyu nag man damay ragal sax damay man li may nattab li mooy ndax moo ko tey wala tëyu ko ndax foog naa kooku ñeme yàlla mu xanaa xanaa ab sénégalais bu bu gëm yàlla waru koo ñeme moo moo moo ma jaaxal. day jékki-jékki rek sos lu rii daal di suuf yi léegi lii lañ gëm ba sax même teg baat yoo xam ne ci téere sax fi ne fi ci téereem bi muy lu xorom moo loo xam ne wax dëgg yàlla gàcce la en tout cas bi en tout cas ñu mel nii moom gàcce lañ ci Sénégal gàcce lañ ci réew mi euh, ndax xam nga lii ngay waxtaane tey rek firnde la ci xam nga suuf yi ku xam seeni wax taxaw naa dañoo sukkandiku ci nga xam ne moom moom i'timaad kulli lañ def ci karaama lool rek gàcce gën a ko rëy seen masaadir yi nga xam ne moom la moom la gën a yab comme boobu nga tudd wala sax nga dem ci arrisala al qushayriya daanaka boo ci demee rek da ngay gis naa mu naa la law lam yakun lil waliyi karamatun zahiratun alayhi fi dunya lam yaqdax fi kawnihi waliya doonte wali amul wenn karama buy feeñ fii ci àdduna loolu du ko tee doon waliyu nga xam ne ñoom istiqaama la ñuy faral di wax ne moom sax mooy karaama gën a mag dañuy wax ne sëñ Mourou Moustapha daana wax ne sëñ Touba mooy sama waajur bu dee ci wàllu diine bu dee ci wàllu sax bu fekkoonte ne doon na damu famille bu foor itam wàllug ndeyam mën na ko caa fekk wàllug yaay waajuram bu jigéen waaye nee na ànd loolu lépp istiqaama moom istiqaama doy istiqaama euh, loolu ni mu bare ci sëriñ kilifa yi tasawuf yi kenn xamul nu mu toll ku ñemee taxaw naa ñii ictimaad kulli lañ def ci ci karaama euh, te ay gone nag yor sa téere bi di ko leng-leng nga xam téere bi moom gàcce la ñoom nag de <laughs> waaye nag damay wax rek ne téere euh, njariñ la ci tasawuf xam nga lu tax muy njariñ mooy day wane euh, maanaam ñeme yàlla euh, gaa yi nga xam ne ñooy tudd sunna te bokkuñu te te yoruñu ci lu bari day ñeme day wane seen ñeme yàlla waaye day wane itam la alimaamu Sukki waxoon ci huitième siècle bi ne noonu la ñuy def maanaam sosal koo xam dañoo wuuteeg moom ci loo xam da koy naqari ci ay mbiram waaye yow daal sëñ Mourou Kama man daal damaa bëgg ngay ngay daan góor gi tànk naa ndax mag la nag fi yaa ngi bëgg bari téere moom foog naa réccu na ko moom tey ji bu affaire doon démb bu démb doon tey yaakaar moom dana ko bind ndax xam naa ne ab looloo looloo moom looloo moom danañ faral di amam xel ndax lii moom du jëfi xel bii téere moom waxuma la sax xam-xam xam-xam du ma ko jëlale moom waaye boroom xel du du bind téere bu mel nii Euh, xëy na nag ñi ñi leen di trompé toujours rek wahaabi yi damay wax ne ab sëriñ ma koy trompé ndax ustaas yi ko munaqasha ne ne ne def nañ munaqasha ilmiya ba ba saxal lettre boobu njëkk na kii nga xam defe naa aslu ñoo ñaa ko rey na ñoo ñaa xam naa ne ak farfarloo da caa dugg loolu nag buñ la ko tegalee boo dajeeg tullaabul ilmi ci ulama suufi faaw ñu fatxu la ndax li ngay wax du wér day day doon xasr eh, xasr xasr carton yi lay doon taaxum carton lay doon moo xam ne booy laal muy ma wax waaye ñu ngi lay sant bu baax baax daal xam naa daal leen rek la ñuy sàkku mooy góor gi moom eh, bopp bi xam nga tey nag moom bopp bi daa taq suuf yëpp kii nga di ko daan ndànk daal nga xam ne da koy teg ndànk ci gannu su mbaa yooyu <laughs>